penda wurus dafa nara noob kii di ca ndeela ulay anta ñàkk ba faw kër gi tas ñu bari ci askanu senegal di laajte ndax noob lu am la tey ma indi leen benn vidéo bu leen di ni noob mu ngi am ba léegi te képp ko bëgg yoon la nga nopp ko yoon la nga nopp ko kon kii di ulay anta dafa war a jóg ci boppam ndax boo bëriwul ñu bari daan sa kaw ñu dem seetaan vidéo bi te ñëwaat soo xamante si nii. Mhm. barki dee moo njaay damaa woo. Mhm. di ma sant. ndax lan juróomi weer ngi nii. Mhm. cinq mois yoo xamante si nii. jëkkëram da kaa wan ginnaaw mu si uti ñaan. ñaan na sëriñ bu ne dem na ca. la ilaha illallah. bi ñëwee ci man. bi mu ko defalee. damaa damaa woo paas ma borom këram. la ilaha illallah. ah loolu nag ma si sant yàlla. allahu akbar. te xam xam-xam bu ma yàlla may la. ma si dimbali doomu aadama rek damaa nooma nooma na ba ñëpp jàpp ne man nopp rek laay liggéey la <laughs> wax nga dëgg de ndax ñi may woo naan ma sëñ bi jox ma numéro sëriñ Fàllu xaw ma ñaata la ba ñi may waxee yow sax am nañ appel jamono ji moo laaj loolu mm-hmm. suy am nañ problème mm-hmm. relation yi am nañ problème mm-hmm. waaye man képp koo xamante si da ngaa bëgg niw da ngaa bëgg niw nga am yéene takk ko wala nga nekk sa jëkkër wala nga nekk sa soxna nga bëgg seen diggante gën a dëgër tawar naa si te ki ma gën a soxla nag. Mhm. mooy ki xamante nii daa wër. di mhm. lu ba mhm. si am résultat. kooku bu ñëwee ci man xolam dina seet. la ilaha illallah. preuve. wóolu li may def mooy tax dama naan la. dugalal alaat boo gisee résultat nga moo tabi man ngaa gis sëriñ bu def loolu. mosuma koo gis wax dëgg yàlla nag man dama koy def ngir woor li may def. la ilaha illallah. Mm. di jë. jamono ji ku bëri wu ñu bëri daan sa kaw. dëgg la. te damay wax ni. sëy yi nan leen di nopp. Mhm. jigéen ñi nay nopp seen i jëkkër. Mhm. ngir ñu bëgg leen. Mhm. góor ñi nay nopp seen i soxna ngir ñu bëgg leen. ndax maanaam diggante yooyu di fi nekk dafa am dafa dafa bëri. muy lan. jafe-jafe yi fi nekk. muy lan. ba bañeeli ci biir. ñi ànd ñi ànd ñii di xeex. léeg-léeg say mbokk goro duñ la bëgg léeg-léeg say njëkk duñ bëgg léeg-léeg sax say mbokki jabar duñ la bëgg. moo tax ma ne ab sëy dañ koy nopp. wala léeg-léeg nga am borom kër wala nga am jabar kenn ku ci nekk yor xaalis du jox moroom.